Euh, Maître El Hadj Diouf bokk ci avocat mu ngi nii gannaaw bu ñu euh, waxee renvoyé nañu procès moom nag mu ngi fas ne euh, addu si si micro taskati xibaar pour ñëw ci renvoi boobu noonu. seere côté boobu ma seere côté boobu. organise déjà yow bàyyi ko. non mais. ah soyez soyez eh non yara wugo jawo eh eh eh mon ami waaw mais

xaaral bu ñu toog toog leen ba pare. maître on y va. Ah, ok wàcc leen seen loxo un peu. wàcc leen micro yi. wàcc leen micro yi. micro yi na wàcc micro yi. Eh, dugalal ma bonnet xaaral xaaral seen bonnet yi di wàcc dugalal ma seen bonnet yi moo eh saa dugal ma bone a eh dugal ma bone yi waay dugal ma bone yi dugal ma bone sa TV bi mais ñoom nañ def naan bàyyi lii laa wax bi waaw bon wàcc ma caméra yi voilà euh, ici Moussa Diallo di 221 euh, dañuy daal di rek taataan ki nga xamante ni moom nekk walsu bot walsu seen bone may leen caméra yi yu mën a jël wàcce leen micro yi caméra yi dañu mën a jël wàcce leen micro yi nee na baax nañ nee na baax yow elal allez boo defee nii man du micro yi man du may toog xaaral rek il faut ñu ñu toog ba rek boo toogee te leen tooguñu après balaa ngeen ci cinq quatre trois deux zéro Donc euh, la chambre criminelle wàccee leen micro yi du ma wax jarul ngeen di kii waa ji béykat la a biir quand même. ko ñii du ma wax. boo ma bàyyi woon dinañ ko organiser. fii laay taxaw. mais man tere moo ñu organiser. bi na wàcc. borom kap Donc la chambre criminelle euh, du tribunal de grande instance de Dakar vient de renvoyer l'affaire de viol Ousmane Sonko contre Adi Rabissa. Un renvoi d'office prononcé par le président de la Chambre criminelle qui a fixé la date de la prochaine audience ce sera le mardi 23 mai, donc à 8 h Mais, vous aurez constaté que l'accusé principal, M. Ousmane Sonko, ne s'est pas présenté. Comme il avait d'ailleurs déclaré, ce n'est point une surprise pour nous. Nous, de la partie civile, défenseurs de la jeune dame Adissa, nous sommes venus pour plaider. Parce que nous n'avons absolument rien à nous reprocher. Parce que la partie civile est prête. Parce que Adissar, comme vous l'avez vu aujourd'hui, est prête à en découdre avec Ousmane Sonko devant la chambre criminelle. Mais quelle est la cause du renvoi C'est un renvoi d'office. Donc, c'est pour une audience spéciale qui sera tenue ici le mardi prochain. On de la réaction de Maître Moussa également qui a dit que problème de délai. Qu'en pensez-vous Vous savez, les arguments des avocats ne m'intéressent pas ici. Ce qui m'intéresse, c'est la décision souveraine du président de la Chambre criminelle qui n'a pas écouté ces arguments, les arguments de l'autre camp et de façon souveraine, usant de son imperium, les juges a renvoyé l'affaire au 23, au 23 mai, le mardi prochain, en audience spéciale. li ma leen mën a wax mooy loolu xaw ma ci dara loolu président moo ci xam dara man du ma président dama ni chambre criminelle euh, bu tribunal grande instance pour Dakar nee na bi woron jàll tey diggante Adji Sarr suma cliente ak Ousmane Sonko dak nako ba talata bi di ñëw audience spéciale nga xam mom kenn rek lañ koy atté lañ fay atté muy le 23 mars prochain talata bi di ñëw ñu wara jakarlo jàkkaarloo tey xam ngeen amoon na juróom-ñeent atte yoo doon am neuf mais bii di ñëw benn lay nekk muy audience spéciale nga xam ni Ousmane Sonko daa war a taxaw Adji Sarr taxaw Ndeye Khady taxaw seen avocat taxaw ku mën sa morom duma yéen ñëpp journalistes yi ngeen toog di seetaan sénégalais yi di déglu xam fan dëgg gi féetee waaye liñ seetlu tey mooy am na ko daw bëre bi ku ñuy wax Ousmane Sonko nee na moom du ñëw xëy na moo tax mu xam lu tax du ñëw ndax dafa bëri fi mbax na nekkee benn ku dee da nga am say say preuve wala say jumtukaay yow war indi ba tax ki att xam ni yow liñ la waxal amul dangay nga yàkkamtee ñëw waxoon ko sax moom waaye tey ji li gis mooy aji saar moo yàkkamti kadi wonda yakkarde nayi tawi moom dawna kii ñëw gis ngeen ko tey yéen jëpp journaliste mu nekk en forme pare pour wax affaire ba ni mu demee fi mu jaar lu waral lii yëpp xam nga olof Njaay mu ne ku mos jàkkaarloo xam ne jëw a neex ku neex ngay balballu wax lu la neex avant làmb waaye bisa làmb ja yow rek yaay toog ca ca arène ba ca ca ca ca ca digg géew ba wara a nak waye tay amna ku daw. tay moy ñëwoon nañu. loolu attekat bi mo koy géré xaw ka la géré. met moussa néna aji sar mi nga xamni néna dañ ko togn ci ba paré pour woné li tax ju togn ko waye kibni daf ko togn anamu est-ce que mu ngi dundu est-ce que dafa nalaw waye dafa daw. met Moussa met Moussa néna né page dafa bari 71 page déjà ak délai bu ñu leen may waaw li ñu leen may bëriwul 400.

war é a am avocat waa avocat yooyu ñaari at ak genn wàll ñoo taxaw ci kanamu tribunal bi naan huit jours dafa sori dañu bëgg ñu mel ñu délai yu gën a bëri ndax affaire bi daa bëri ay ay këyit daa bëri daa bëri ay këyit président bi renvoyé na ko ba pare ñoom ñu nañ ci yokk nañ yokk huit jours yi ma ah, ne waaw ñaari at ak genn é wàll nga nekk ci dossier di laaj ñu yokkaat ci ay bis pour nga gën a xoolaat yow koo yab yow koy nga ni aj aji bi ngeen gis tey ak jaagar jaagaram ak ni ma kontaanee ànd ak avocat bi ngeen xam xam nga ni ragal kenn de xam ngeen ni ki ko dar ki ko wër ak moom ci boppam am na fulle am na fayda xam na li wax ñeme na li muy wax waaw ma ni ki ñemewul kay laajal ko moom ndax moom moom moo xëy na moo mënul ñëw waaye ki ñëw kay nag ki ñëwul kay ngay laaj ndax moom ndax moom lu ko dal ba ñëwul ndax ñeme na dafa feebar daf dana retenir devant El Hadji Diouf waaye bu leen di avocat bu leen di Adji Sarr bu leen di Adji Sarr moom ndax mën na taxaw kanamu tribunal bi Adji Sarr pare na démb tey soog a ñëw kii daw kii daw du Adji Sarr rek ma ne kii daw kii daw kii daw ay xel du Adji Sarr kon kooku mën na défendre boppam kooku xam na li muy wax kanamu Sénégal yëpp ki daw ñëpp gis ko xam nañ ko. le 23 bu Ousmane Sonko loolu laaj ko tribunal bi moom mooy dogal. d'accord maître en français maître en français maître. intéressé